wax nga dëgg ndax nit faw ñu wax la daanaka ni nga xam ne noonu la jëmmoo ci aw melo ba ñu gën a xam mooy kan ndax maam Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam dafa gane àdduna am mag jum bokkal ndey ak baay ju tudde maam Biram Ciru Caw waaye moom dafa def juróom-ñeenti weer bàyyi ween maanaam ñu feral ko ajjuma ajjuma dellusi si bàyyam maam Alassane utal këb néeg utal ka lal utal ka satala utal këb dar ci koo xam ne ki mu ngi soog a bàyyi ween yaayam di maam Kumba nekk bàyyi biram maam Alassane lay wax biram mooy taaw bi bàyyi biram da xaala bëgg rey ma doom mu nekk sa doom ji manuma kaa rey ndax dégg nga bi mu nekkee ci sa biir la mu daan wax ak yow kon bu ganee àdduna ñu berloo ma ko ma ber ko kon mu mel ni ci ndégal la ko defe waaye bi mu ko beralee noonu nag magam ji mu bokkal ndey ak baay di maam biram ciru caw mooy xëy di gis ci bunt nekk maam limaamu loo xam ne lii amul ci moom te gisuñu ko ci keneen foofu maanaam moo wax baayam ne ko néeg limaamu bii am na fas woo xam ne mu ngi taxaw ci bunt bi saay bu ci taxawee limaamu dina war ci fas wi dem ak moom ndekete booba buraax moo koy gan si mu nekk xaaral tuuti léegi nga gis ko loolu suñu borom wan ko ko bàyyam maam alsaan nekk noppil noonu la nekke nekke am benn melokaan boo xam ne bii loolu bu dee mas nañ kaa gisit man de masuma kaa dégg kon bi mu demee ba commencé dox ndax juróom-ñeenti weer yooyu fekk na ko muy dox waaxu bu dëgër sax waaye dox bi mu doon dox bu dëggee dem àll baw ginaar muy sobe fa taxaw di jooy ba ñu raxas ko mu dëgër tuuti baayam di ko yónni pour mu dem gorali ko matt bu demee ak jaasi ñëw loxo yi neen bu ko nee ane matt mi ma la woon mu nekk manumaa indi benn matt ndax garab gu ma jub bëgg koo gor mu sujjootal ma xanaa kon mel na ni garab yi xam nañu mooy kan baayam noppi ca noonu la nekke ba na mu dëgëre te loolu yépp nag masula dal baa kon ndaw lu ñu fiy gis lu ne te suñu borom ba waajal la pour ëllëg ñuy wax sëriñ wala wàllu wala grade bu ñu la mën a jox dangay dem daara nga dal baa jàng moom nag masula dal daara masula toog ci kanamu benn mbindeef ci kaw suuf jàng fa waaye terewul mu am na diine joo xam ne ji ak it jël na li nga xam ne lii mooy li baayam xamoon li xam ko muy napp muy dem géej di napp ay jën ak di dem tool di bay dem na it ba làq na ay at waxambaane jëm kaw di nooraani dinañ dem ba fii ba bànjul daanañ dem fii ba Kayaar fii ba Ndar di wuti ji ay xéewal ndax booba Ndakaaru 1883 la boo gisee photo yi ci ndakaaru dinga xam ne kon fii dëkk bi wute na ak léegi limaamul mahdu ji baayam maam Alassane bi nga xamee ne bii dem nañu wàll ji fële ci wóoru Mahdi jiyaar dañ leen ne fu ngeen bàyyi ko ñu ne sawu jant ñun leen sawu jant yéen day du ngeen fekki diine diine moo leen di fekki te ki tax diina di leen fekki bàyyamañ ci mbooloo mi bu ngeen delloo ku fa am doom ju góor na ko tudde limaamu kon foofa la tur ba bàyyi ko fukki limaamu ak ñeent am fa ci at moomu ndax ku jur doom muy góor rek nga tudde limaamu waaye limaamu yooyu yëpp dañoo dee ci ndaw ba limaamu mi wéy ba mu demee nag ba am fanweeri at ak juróom-ñeent dafa demoon dëkk bu ñuy wax Gàmbi fii Banjul mu ngi ànd ak góor gi maam Thierno Sarr Coom ñu am koo xam ne kii mu ngi tuddee Keba Masali moom moo gis genn leer gu ko tiim mook ñi mu àndal te xamul kan la ci leer gi ci moom mu taaj aw ñamam woo leen pour ñu ñëw waaye nag waxu leen na aw ñam la da doon sàkku ndimmal ku ko jàppale te maam limaam alayhi salaam boo xamee ne bii da ngay santaane ab liggéey mooy kay jiitu ci bëgg ñëw joxe dooleem pour jàppale la ba mu demee ndekete du ab liggéey ñu jox ko mu xéewlu nekk boo paree nga woo sa moroom boobu boobu bëgg na gis ndax bu fa jógee leer ga dana fa desam déet bi mu ràññee li mu ràññee ci moom nag bi maam li mu génnee la ne Thierno Sarr Thiam yow it demal jël sa wàll mu ñëw dugg ñu teral ko mu dénk diis ko wax ne ko kii nga àndal de li ma doon seet gis naa ko ci moom fii ak weer ak fukki fan 40 jours dina woote ne yàlla ma ni bu la ci kenn jiit ndaw la tegtal booba nag moo tax ci wër Thierno Sarr Thiome doon xaar lu ni mel ba waxtu wa keroog mu jot ci moom kon nag turu wuyu na ko ci bi mu ko bokkee ak fukki nit ak ñeent di ay xale ñépp faatu nañu ba mu des moom moom moomule bi mu ñëwee gis nga li baajuram bu góor maam alsaan def ci moom loola mu di ak jakle ba malgré que mooy magam maam biram tur caw ñu bokk ndey ak baay waaye li ci moom nekkul ci moom kon loolu mooy li nga xam ne lii mooy portrait ak jaar-jaaru ndawam ci ku dalul baa demul daara activité économique muy liggéey daraan dem di napp ji ak di dem di bàyyi tool bu nappi jee tamit lépp lu mu am ci aw jën bu waajuram wu jigéen maam Kumba Ndoye teelu la dem am ci jën wa da koy joxe ba mu jeex maanaam dafa àndoon ak tap goo xam ne gi wax dëgg yàlla tubaab di ko wooye générosité bu yéeme ba lu mu am da koy joxe nekk it koo xam ne kii ku ñu wóolu la yàlla baaxe ko gént yoo xam ne lu mu gis guddi bu bëccëgee loola nekk moo waral nag ak dem toolam mu ngi mujjee ci tool yi ñuy wax xamsaan xamsaan moo nekkoon fii ci Mariste mu ngi ànd ak doomu nijaayam ji ñuy wax Daawuda Ndoy ñu ngi ci weeru bi ñuy wax rajab ñu jóge ci tool yi ñëw ba fii tey ñuy wax rond-point bu mag bi ci la taxaw ak moom nekk daaw Daawda Ndooy sama doomi ndijaay biig de suma boroom xamal na ma wan na ma génn àdduna wàllu jigéen woo xam ne mi aka maa mayam ñu ngi toll ci ñaar fukki fan juróom ëllëg sa rek ñu xëy yaayam génn àdduna ci la tooge nag ñetti fan ca ginnaa ëllëg kon ñaar fukki fan yaak juróom ñaar ci la waajuram bu génn jigéen maam Kumba génn àdduna bi mu génnee àdduna moom mu gelu maanaam beru na di jooy nit ñi nag di ko defal ak di ko massaw moom mu toog ñetti fan waxul ak kenn lekkul tamit naanul gisuñu ko mu lekk mu naan bi weer wi xëyee feeñ di benn panu baraxlu ca la laaj euh, bàjjanam ak i soxnaam ak jigéenam muy euh, ñaari soxnaam di maam faati mbeng waajuru yonte yàlla ak maam farma Diop di waajuru Seyna Mandione ak Njaay Jaw di ab jigéenam ak bàjjanam aadama caw kenn ku ne jigéen ñi mun leen suñu borom ba jox na leen borom kër boo xam ne bi dootu ko jox kenn ci àdduna jigéenam bi bu nekk suñu borom ba jox na la càmmañ loo xam ne dootu ko jox kenn ci àdduna bàjjanam ba kazalika suñu borom ba jox na la doom ju mu doon jox kenn ci àdduna daal leen laaj ay malaan yu weex jël malaan yu weex yooyu taraxlaayoo ko kayfaanoo ko kaalawoo ko làmboo ko ci guddi gi nag muy fanweeri fan yi mu teen asamaaw seen malaaka yi di jiin jiin nag géwél yi buñ ko masaan def dañuy am lu ñuy yëgle nee ñu ngi naan njiinoo njiinum yàlla jib na njiinoo njiinum yàlla jib na ndekete boobu appe mat na bi mu xëyee diggante 9 ak 10 heures ci yor yoru góor la dox nag jëm géej taxaw ci pinde ba jublu penku daldi di ne ajiboo daahiya laay yaa maxsara insi wal jinni inni rasulullah ilaykum jublu penku wax ko jublu saw wax ko ndijoor ak càmmañ muy les quatre points cardinaux daal di ne kon yéen nit ak jinne yàlla moom mu yónni ci yéen kon bés boobu la bal bi tàkk laa mën a wax ñu daldi di ne kon kii eggal na dafa dof nit ñi teg kab dof ba ndijaayam bu demee ci penc mi ca mbaarum géej ñu nekk yow taloo toog demal faji sa doom jële kële dafa jommi moom nag mu ne buñ ñëwee balaa ndijaay jee wax mu nekk ko dañ laa wax ne damaa dof boo bëggee xam damaa dof wala déet wutal yóbbal nga dem mag boo demee ne leen am naa doom ju góor mu ngi tudd limaamul mahdiyu mu ngi toll ci ñeent fukki at di wax ne yàllaa ma yónni ñoom dinañ la tontu. mu nekk xam nga ne man jatiwuma màkk mu ne kon toogal ta muñ ci noonu la waxe ne yàlla moo ma yónni maanaam yàllaa ma yónni kenn du ko jiñ nit nit kee koy wax boppam wàllu yu nag mën nañ la kaa jiñ ña la jiñ sax dañ ñi dañuy xam ñii xamuñu ndax nattukaay bi day jafe waaye yàllaa ma yónni yonent bu nekk yaa koy xool sa bopp waaye nag foofu pour bañ nag confusion ndax Mohamed dañ ne moo mujj ci yonente yi mu ne Mohamed mi nele woon yeewu na naar ba xeesoon ñuul na man a démb man a tey ma weexoon ca màkkatal mu karam yàlla yónniwaat ma fii ma ñuul daldi dina buggeen gisee ci man jëf ak jikko ak wax juwóoteeg Mamadu duma moom xam nga mbindeef mënu koo roy ci jëf ak jikko ak wax moo waral nag mu amoon benn particularité boo xam ne bii ginnaaw dalul baa kon nabi lu mi la waaye amul takkandeer ba ñu mën koo portale comme doomam ju tedd jéem a tiim kii mooy yonte al isaaru wala di doom waaye moom amul photo bu amoon foto tey jamono bii ñuy wax caricature yonent bi kon dañ naan waa laayeen yii di wax naan maam li maam mooy yonent bi te kële dañuy bañ sax ku ko caricature moom day photo ma ngi nii ah kon yonent bi nii la mel kon jam-jam dina fa am loolu benn la ñaareel ba moom dalul baa jàngul ndax dem ba jàngul wama alam naaw sihra wama yan bay lawo in uwa ila zikrun wa qur'anun mubin kon moom jàngul yow yelloo ngay way dañ laa war a way démb kon li ko ko tere woon muy alxuraanul karim jooju loolaa valable ba tey jii waaw léegi nag moom bu doxee teg tànkam du marqué du am empreinte takkandeer du ko am bu ñu ko portalee bu ngeen ko séqoon yéen ñaari jëmm yi di ngeen feeñ waaye moom place day leer ndax ànd na ko ak ay mag góor gi Momar bint Sàmb ci njëkkab gëm la bokk ak yeneen mag am na mag mu ko fekke bu ñuy wax bay libaas wadd mu ngi dëkkoon Tëngéej quartier Dangu Nord waajuram di maam Alsan Wadd dëkk Bargny man seeti naa ko moom fekk na bàyyi laay carte googu ñu koy xool teewee na ko maa ngi te ma toog ak moom le 15 août 1978 après midi la woon mu ne carte gi dafa génn ñu ne ko waaw limaamu yow yaa ngi woon ci suñu diggante waaye gisuñu la mu ne loolu da leen jaaxal ñu ne waaw mu ne leeruk yàlla leeruk mbindeef mënu koo jàpp kon firndee ngi noonu te bu tegee tànkam du marqué waaye bu ko tegee ci xeer mu marqué ndoxum géej gi du laal comme nga mu jaar ci boori géej gi ndox mi baawaan da koy contourner bu ngeen àndee yooyu ñuy daw ngir bañ ndox mi tooyal leen ndox mi dina leen tooyal wëraat ko te du ko tooyal kon géej gi xam na ko buy taw taw bi du wàcc ci moom da kay wër bu naaj wi tàngee nii comme ni mu mel ci mois d'octobre ci senegal jant bi du ko niit ak aw na aw niir moo koy tiim di ko keral yow nag bu fekkee boroom xel nga te yàlla day wax ak boroom xel yi yooyu yëpp bu dajaloo ci jenn jëmm ji nga xam ne ji kenn ñu ko waaye moo waxal boppam ci làmmiñu boppam ne yàlla moom ma yónni maa weexoon di Mohamed ci Màkka maa ñuul di Mahdi yu fii ci Yoof yow kon war ngaa dem lëñtu lu mel wala nga càmbarka jël sam xel jariñoo ko comme ni yàlla di wax ak borom xel yi ci alxuraanul karim dafa woote ci jamonoy colonisation ndax tubaab bi def ñu not le 25 mai 1857 la Protet capitaine de faisceau ànd ak armem jóge Gorée ñëw installé wu jour de Korité à Dakar fii ñuy waxte tey place Indépendance dematuñu ak seen i armes lébu yi nga xam ne dañu nekkoon dans une république euh, organisée ñoom lébu yi nekk dans une république lébu avec son grand serigne de Dakar avec son ndey ji réew avec son day jàmbur et cetera et cetera am seen indépendance tubaab bi nekk Gorée ñuy traité comme deux grandes puissances d'égal à égal bu tubaab yi franchiré zone maritime bu lébu fay ay droit lébu yi signanteeg ñoom ay traité le traité de du 26 avril 1826 ak le traité de 1830 loolu moo seqante woon république lébu ak république française bi tubaab bi ñëwee wuutu fi portugais yi installé wu à à Gorée lébu yi jaay tubaab yi armeel yu ñuy suule muy belleer ñu ngi leen ko jaay mille cinq cent lébu yi euh, signé convention pour joxe lii tey di Mamel le 27 août 1858 ki ka signé mooy jaraaf Mboor Ndooy moom ak proté capitaine de faisceau kan moo leen témoigné Ousmane Diène né en 1800 avec une rente de douze francs et quelques lébu yi nag inclure ay ci notion convention ba ne buleen leen dugg ci suñu gestion république kon nag ma ne ci contexte boobu nag ci la maam Limaamu Laay alayhi salaam wootee en 1883 ndax dañ noo coloniser pendant un siècle de à 1958 bi général de Gaulle di wax naan vous voulez l'indépendance prenez-la loolu Mbaye Jacques Diop daan faral di feete fii au mois d'août kon un siècle la ci biir contexte boobu nag ci la bay laay woote ne yàlla mooy tubaab bi nag craindre ne dañu nar a euh, ne nasaxal pouvoir am muy nguuram ci la ci jóge nag waaye booba pratiquement seen nguur ñu ngi installé wu woon à Saint-Louis Ndar moo tax le délégué de l'intérieur de Saint-Louis monsieur Kentry moo bind lettre le délégué de l'intérieur de Dakar monsieur Bajenski dans sa lettre du 17 décembre 1886 daal di koy wax ne que il semble résulter d'après certains renseignements qu'une nouvelle secte se serait formée dans le village de Yoff au deuxième arrondissement le chef qui se dit un nombre ressuscité kon baatub ressuscité mooy ku dellu si kon tubaab bi xam na ni kii dana dama dellu si mu ne il se promènerait aux alentours pour augmenter le nombre de ses prosélytes ay taalibeem dont le chiffre atteint déjà trois cents loolu bi ko Kendrick waxee daal di ciy teg nag nag nag je vous prie de surveiller et de faire surveiller ses allures et me rendre compte sous timbre confidentiel kon renseignements généraux yàgg na fi tubaab boobu mu sant lool ci ndakaaru tudde Banjeski moo commettre le commissaire euh, Milanini kooku tamit commettre un soldat mbay qui est mu dem def enquête pour rendre compte kooku ba mu ñëwee dane dafa ñëw ngir jébbalu bàyyi laay bàyyi ko mu am liberté d'action ci kër gi yëpp ndax dañ ko wax ne dafa yor ay armes te li mu nar mooy bu jógee dal ci seen kaw yéen tubaab bi loolu nag nekkul dëgg ba mu wëree ba gis ne fii dara amu fi mu war a rentré nag ci la tàggoo ne day jëli ay bagages fekk boobu dafa bëgg rendre compte bàyyi laa nekk wax te doo xaar ñi la yebaloon mu dem waaye yàggul dara moom moom matul weer sax ñu affecté ko moom mbay moomu la Milani ni ci boppam yàggul dara ñu affecté ko ki ci boppam yàggul dara ñu affecté ko kon ñoom ñëpp soor bi dal na ci seen kaw waaye kenn ku nekk nag ak kala ak bi nga ñëwee zel bi nga xam ne moom nga wane ki remplacé ki nag muy Cléré kooku nag moo dem ba aboutir avec plusieurs loo xam ne lii buñ ko doon nettali day yaatu ci ay lettres ci ay télégramme ci ay notes mu mel ni rek temps bi ñuy seet euh, Oussama Ben Laden ci àdduna bi ni nga xam ne noonu lañ occupé actualité bi loolu nag moo dem ba le 6 septembre nag gars yi daal dina kii daal li ma ci xam mooy nañ ko jàpp bu pare soog a def enquête parce que en matière politique c'est comme ça qu'il faut agir loolaa waral nag le juge d'instruction bi kon gore wax ne mënuma ko téye sans preuve yooyu indil leen mu ay preuves supplémentaires moo tax ñu ñëw def ko benn première attaque le 7 septembre 1887 bi ñu laata ñëw yëg na ni ñu ngi ñëw mun leen bu fi nit ñëwoon bëgg maa rey wala bëgg maa yóbbu nu ngeen def taalibe yi nekk kon ñu jar suñu bakken mu ne déedéet bu keroogee dem leen ci buntu jàkk ja ngeen tudde yàlla bàyyi ma yàlla ma wéeru ci yàlla ndax tawakkaltu alay wakkila loolu la nag ba ñu ñëwee noonam yi dañ ko ne gis nga fii ñu ko denc tey jàmmalaay lañ nekk bu lekkee aw jën ba suur ak cere foofa laa tëdd man ngeen ko faa fekk in rey ko te kenn du ko yëg ñu dem fekk fa kenn ndeke mu ngi ci këram ñu ñëw ci sàqet wi jël saabar bi dóor sàqet wi mu xar ñu ne uye limaamu fekk mu ngiy jàpp wuyuwu leen ñu daal di kosati almet pour taal kër ga mu génn teg ca loxoom na leen du tàkk ñu kosatiwaat taal mu génne loxoom teg ca na leen du tàkk ñu jaaxle ne kon kii nañ ko mënata yóbbu ko bi ñu génnee seen gi mu tàllal ñaari loxo yi bi mu tàllalee ñaari loxo yi ñu ne karaj kaj tëj mu ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sal seen gi wadd kooku daal di jël pistolet bi mu yëkkati biir bi ñu tiire tàkkul mu dëkk nopp bi ne fii la doomu aadama gën ñu tiire tàkkul njàqare am na ci ñoom ca la ko song nag maam li maamu yanu ba ci kaw dóor ci suuf gawar ga 41 espace dañoo départ daw moom mu tëdd foofu limaamu moo ko weq ne ko jógal noonu yàlla bi mu jóg dem fàtte fa chaîne gi mu doon mënatee Baye Laye Baye Laye jël ab jarbaatam bu ñuy wax Mamar Mamar Jaañ xëri yóbbante ko ko mu delloo ko kon loolu mooy la séquence de se première tentative sans succès finalement xam nañ ne euh, dañoo nar a wuti ji doole pour ñëwaat mooy song mi nga xam ne moo waral gàddaayam le 10 septembre 1887 foofu nag ki fi nekkoon di Serigne Ndakaaru di bàyyi tëxam mu di sama maam Jali Bëkk moo ñëw di intercéder pour waxtaan ak moom nekk yow borom mi bokk nga tubaab bi fi ñu toll liñ nar def day rëy te kon deret day tuuru bàyyil si taalibe yi ñu dellu kay nga yow ma jubaan laak tubaab bi moom Jal Diop moo wax loolu de canton limaamu ne ko man meddum yàlla mi manuma dàqatan yàlla yi te lii ma yàlla yónni bu jant bi demoon bay lang te li ma yàlla yónni matul suñu borom bi dina ko téye foofu ba ma àggal sama wote bi bu waaye nag dinaa dee bu sama dee jotee waaye bu ma dee te li ma yàlla yónni matul ngone sii moo koy mottali daal dina yóot doomam kii yonte al isaa mu ngi toll ci neuf ans mu tekk ci mbaggum càmmañam mi wëndeelu ak moom daal ne kii moo may wutu loolu defi la kii moo may wutu bu deewee balaa ngay dee nag kon ku jubboog boroom la moo tax kii moo may wutu kooku moo ko wutu muy taawam bii di yonti ali saaru alayhi salaam kon foofu la jaar ak tubaab bi looloo waral l'exil de la nuit du au 11 septembre 1887 vers Malika ci ngejje gi foofu ñu dem ziara mu def fa ñetti fan ñetti fan yamu fa def jusqu'au 14 septembre vers 14 heures ci la feeñu ñi ko doon seet ndax dañoo mobiliser juróom-ñaari dëkk yi Ngor Wakaam Yoof mm, ak dakaar ak yëmbël ak Caaro ak Mbaaw ak Tëngéej fenn fu nekk ñu jël fa un nombre ñu mel ni ay yamba ñuy wër limaamu ñun leen dañoo soxla jëmmam wala euh, néewam bi ñu wëree ba sonn nag te moom daana daa wax naan ñetti fan ñetti at ñetti fan ñetti weer ndekete ñetti at yi mooy ñetti at yi nga xam ne yi persécution yi ci lay door ñetti fan yi ndekete moom xam ne na ñetti fan lay def ngejje jega ñetti weer yi mooy son internement à Gorée loolu la fa def également trois mois donc loolaa waral bi ñetti fan jotee mu feeñu leen waaye moment bi nga xam ne bii fanaan na fa dafa xëy nit ñi mu àndal dañuy woor ñu nekk àllub neen buñ fa wooree ane lan la ñuy doge mu leen meew ak soow mi rasul lay doge woon ca xarayra loolu moom lay doge fii tuuti am ñoo xam ne ñu ngi jóge caaroy géej muy sampend ak sirataal ki yor gambub meew kii yor gambub soow ba ñëwee ba jub ko gestuwul de kookan la sampend laa yor meew kaa àndal sirataal laa yor soow bu dëkkay loolu moom lañ doge foofu ci digg àll bi am na loo xam ne mënul nekk hasard mu dem gore nag ci gàttal def na fa trois mois ba ñu def ordonnance de non lieu parce que les enquêtes à charge et à décharge avec des témoins à l'appui n'ont rien donné ci le juge Gilbert Devalon def un euh, une ordonnance de non lieu mu génn fa nag ak ki mu ànduloon di Tafsir Ablaye Diallo di goroom ndax moom la may taawam ñu dem kër Tafsir Mbaye Sylla mi nekkoon ilimaani raati bu ndakaaru pendant vingt deux ans jiite kadi bi di atte tribunal musulman pendant quatorze ans kooku nag ba mu nekkee daara ca boori kokki ci la ko suñ borom ba wonoon ci gént mu toog ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci taatu garab fàtte na ko waaye bi nga xam ne bii jóge na bàyyi laay jóge na gore mu teeru ko ñëw ba ci taatu garab ñu toog bàyyi laay moo ko ne mbay si la fiiw toog ndax masulaa am benn gént xel mi rëdd mu nekk masuloo toog ak bi fii mu nekk bu dëkkee bu nekk maa ngi nii mu nekk bu dëkkee laay ñu dox tuuti mu tombeek weeru gàmm wii ñuy gis ñu dégg tukkuleer yi di way wayu tiijaan yooyu mu ne waa lu xew ñu nekk judduk yonent bi la ñuy màggal mu ne xalaat suñu borom ma xarala ndax moos bu ñu xamoon ne kii ñëwee mu ngi nii tey di dox ci kaw suuf kon nag loolu moom mooy périple bi nga xam ne bii moo jur mu génn nag foofu au bout de neuf mois Thierno Mbaye Sylla may ko doom bu ñuy wax maam tuut Sylla mu am ci doom ju ñuy wax Seydina Babacar moo jur njaboot gii tey kii jiite it maam Libaas ak Mamadou Lamine kii def muuraay bu weex bi. imaam Maxtaar ki nekk imaam ratib ak seen rakk maam Alsaan ak jigéen kon loolaa waral tamit nag bàyyi laay def ci moom mujizaat keroog ba muy génn àdduna moom Tafsir Mbaye Sylla 1902 ndax ndakaaru gépp ku fi di fóore keroog yaa ngi toog kilifa gu toll noonu lépp gépp toog ñu ne dañu war a robi ji Mbaye Sylla bàyyi laay déparé yoof ànd ak góor gi la ànd ak mbay maaram jéen kii yor càng eh, kii bi càng ëmb càngaay moom góor gi yor ndee la bi nga xam ne bi àgg nañ Ndakaaru góor gi Ousmane Diène mi ma la wax ne moo nekkoon témoin de la signature de la convention bi ñu signé le 27 août 1858 pour Mamel bi Ousmane Diène mooma ndijaay la ci maam Baye Laay moo ko ne aw limaamu suba benn tey indi la xaar ula soog a ñëw waxtu wi te bañaa dem armeel yi doo dem mu nekk yàlla mën naa àtte du ngeen dem armeel yi mu dugg néew baa ngi ñu tëral ci pajaas bi ci néeg bi mu ñëw wër ko ñetti yoon toog yëkkati bopp bi teg ko fii ci poojam woo ko ñaari yoon mu ne patt ñetteel bi yoon mu ne xefeet comme ko doon nelaw mu nekk mbay si ndax xam nga ma mu nekk xam naa la kay ndax yow yaay seydil awalina wa seydil axirin yow kay yaay seydil raay sulkul mursalin yaay njiital ñu nu yónni ña yow kay werante fii la ci àdduna waaye du àllaaxira ndax moom mi demoon àllaaxira ñu dekkal ko nii moo mën a wax lu ni mel loolu xew na ci digg ndakaaru fii muy mujizaat bu rëy duñu ñaar kenn lañu ndax Seydina Mohamed sallallahu alayhi démb moom moo wax ne mahdi yu min nii mahdi yu man lay doon yox tamit di kama futaa bi mu ne mooy tëj diine kem man ni ma ko ubbe ane moo am daraja pouvoir pour tëj diine l'islam ji Seydina Mohamed ubbi woon ku dul moom boo déggee ñu naan que seydil awalina wa seydil axirina mooy sang bu njëkk ba tey sang bu mujj bi ndax moom Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo annoncé ne Mahdi yu dina ñëw te man lay doon waaye moo annoncé tamit ne Isaa Roowalaay dina ñëw genn ab jamono mooy doon sama kuutaay moo may remplacer yonente bee ko wax te gis nañ ne démb ba mu weexee Ababacar moo ko wutu am déet yonente bi tëdd na feebar treize jours soo génn àdduna guddik fukkeel baak ñeent waaw bi mu dellusee ne mën a dem mën a tey Issa mu ne woon moo may wuutu ndekete deuxième mission bee tax parce que Issa démb matalul mission suñ borom bi yéegi ka war koo delloo si ci mujjug jamono muy màndargam saa kon ça fait il fait partie des signes de leur avec un grand H Issa nag na Issa mi wuutu ko 1909 kaalaam gu weex gii ngay seen bula neexee nga zoomé ko dinga ci ràññee loo xam ne lii mën nga kaa ràññeel sa bopp waaye dina ci am loo xam ne lii faw ma wax la ko nga soog koo gis ma jox la porte lay firnde nga nga soog koo mën a ràññee moom na dafa wax ne je suis l'alpha et l'oméga maa jëkk te maa mujj moom Issa démb moo signalé woon feeñu Mouhamed sallallahu ne am na kuy ñëw yonent bu tudd Ahmad du dëgg kon jiitu na waaye fii tamit moo tëj ndax moo mujje ginnaaw Mahdi kon bu nee je suis l'étoile du petit matin et l'étoile du soir bu jant bi sowee am na biddiw buy des fii muy l'étoile du soir balaa jant bee génn am na biddiw buy jëkk génn moo tax mu ne je suis l'étoile du matin et l'étoile du soir kon loolu bu fekkente ne yow am nga ak seetlu yow yaa koy seetlul sa bopp xam wax ji fu mu tege moom moo waxoon loolu démb kon nag maam Limaamu Mahdi alayhi salaatu jur na Isaa bëgg ko tudde jeneen doom muy manjoon jéen waaye Isaa ndekete dafa indaale aw turam ci yaram wi yépp loolu tax ñu tudde ko Isaa moom it mu nekk fi 40 ans ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam démb Isaa dina ma wuutu dina fi toog 40 ans dina fi ami doom dina fi amit soxna aki doom ndax démb ku ne xam na ne sëyul woon amul woon soxna amul woon ay doom kon doom yooyu sortu Imran di junj ci biir alxuraanu karim ak sët ya ndekete deuxième mission bi moo taxoon muy wax muy Jésus Christ Isa ibnu Mariama te moom wax na ko ci aw làmmiñ ne man maay Isa ibnu Mariama lépp lu isaa ibnu mariama doon def démb mu tudd mojisa ci dekkal ku dee ci wax ak squelette muy naan ko xaw kande waaye kiñ ma duppee bu rombee mbindee fa yàlla mu mel nii dina xam lu ko fa bàyyi jël bantub ngeer bi dénkaane ngalaa bu fasam góor gi libaas muub di yëngal boppam muy squelette di wax ak moom mu di ko tontu def na ko doxloo na la fañ ku ñëw wax mu Mamadou Laye Mbengue dëkkoon ci géejawaay ba ma koy nettali mu ngi dawal taxi ñu génn usine benn tali wala franchir Bourguiba pour dugg a jëppal un mu di may nettali moom Mamadou Laye mbeng dund na ba am 17 ans dafa la fañ benn bés la Seydina Issa ca Tilène woolu ko bàyyam indil ko ko mu ñaan mooy nettali di nee na sama bopp di sedd ci kaw ba ci samay tànk bés boobu laa taxaw bés boobu laa doxe ba tey jii maa ngi dawal taxi loolu yàlla dogal na dugg naa ci otom bu di ma koy nettali boppam jamono boobu maa ngi dëkk gël Tapée